njaayu mburu ci boutique yi doon na nag ab problème euh, boo xam ne nag war nañ ko farataal li nga xam ne moom mooy norme d'hygiène yu gën a euh, ndaw sax ñii di boutique yi nag euh, doon na luñ dul respecté. mburu bi boo ko liggéeyee waruñu ko jaay lu dul ci boutique bi waruñu ko jaay lu dul ci ay endroit yu set mais da ngay gis mburu bi par exemple ñu yóbbu ko ci boutique boo xam ne li yàlla xam doy na dafa am ay kafaar am ay janax boutiquier bi bu koy jaay da ngay gis day laal day laal yeneen produits yoo xam ne àndul ak mburu bi laal saabu laal omo laal këriñ laal leneen loo xam ne ba pare mburu bi ñu ngi ko exposé ci biir euh, boutique bi comme ça. mburu bay jëm ci boutique yi balaa rek mooy yegg euh, fa nga xam ne euh, moom mooy boutique yooyee dana jaar fu ne wali nag di ab ndaw boo xam ne mu nga jóge nag ci Guinée di ab livreur de pain moom nag jàpp na ni ci li ñeel wàllum hygiène moo ngi koy sàmm bu baax. sensibiliser dama bugga lu set dama bugg a lekk lu baax te li ma yéen sama bopp loolu laay bugg a yéene sama moroom doomu aadama bugguma yéene sama bopp lu baax ba pare ma xëy suba yéene la loo xam ne jaaru yoon la looloo tax moo tax su may liggéey li may aar sam bopp noonu lay aaree li may dundee. gannaaw nag ndaje bi nga xam ne nag ñii di union nationale des consommateurs amaloon nañ ko ak état bi boobu ak léegi nag mesure yañ fa waxtaanee kenn appliqué gu ko. kuréel yëg ak yi ko war a toppatoo daje nañu waxtaan nañu.